indi woon nga fi problème mu ay faux billets. waaw nga ni faux billets yi bu génnee cool dina yëngu may la baat nañ ko génne nga ne ma non nañ nëpp nëppal. na déedéet waxuma la nañ ko nëpp nëppal ah, dama ne la gendarmerie moo ci nekk di. Ah, enquête déedéet déedéet déedéet. Ah, ban xoolal wuyu ma wuyu ma wuyu ma bàyyi non ban bàyyi lu la arrangé. déedéet déedéet déedéet déglu ma gendarmerie moo ci nekk di enquête te dama jot ordre ni xaar baña yak sen enquête motax ma téye ko suñu suñu neppal ko waxal xolal du nepp neppal de élément baangi fi suñu gendarmerie di paré makoy koy def ban indi nga fi xeexu Chine ñu ne la ban fo ci tollu ngay nañ nepp neppal <laughs> nañ dem ci élément bi ci topp ci xalaas bi ayca waaw bii nii nëpp nëppal yi ci biir kër gi ak lélo rof joylo bu melni nii déglu ayca sonal ngeen ma ak bokk ndey ak baay mu am ñetti doom yu góor ki di tawam mu sonu lol ci seyam ak benn batay mi ngi sey ci këru famille musul genn sonn fa lool tax donc mu yaakaaroon ci taawam ji nga xam ne jàng na ba pare moom doomam yi kese macha allah ñoo nangoo jàng parce que daf ci taxaw donc taaw bi pare jàng mu am bac G2 ak mention pare université université Sakhir Thiam bi bi mu ci duggee mën jàng ba bëgg a dee euh, bi Sakhir Thiam yëgee situation waajuram mi may na ko un an boo xam ne fayul fayul université bi macha allah donc mu jékki-jékki ñu woo ko liggéey. Hmm, deux fois de suite bu demee rek ñëw ak ay daw yaayam ne ko lan la mu ne ko ah man de maman dama dugg ay sax ay yu kenn xamul di yëg sama kaw dootuma fa dem. yaay ji jaaxle di ñaan yàlla yeneen saay xale bi ñëw toog ci wetam di wax ay waxu dépression daal mel ni ko àndul ak sa gom yaay ji woo ma parce woo ma expliqué ma ko ñu ngi koy naqarlu ma ne ko léegi ay affaire hôpital ngay teg muy dem fan ma ne ko bàyyil fan parce que man je sais que lii du dafa nekk ku jege yàlla Masha allah ku fonk diinam ba ndoy wallahi sama mag ji gëmul seet gëmul sëriñ du def dara lu dul toog yor ya, kurusam ma ne ko nag yàlla na yàlla bay sa tool man ma jël initiative bi ma woo sama benn sëriñ boo xam ne bi ma seetalee mu ne ma xale bii dañ ko liggéey liggéey yu bon te ko yaayam gëmu ko torop ma ne ko diw mu ne man naam ma ko sa doom dañ ko liggéey ni ma ci toppee nattal leen ci donc ma woo borom këram ñoom tam ñu jóg

ba pare ñëpp wax nañu la même chose ki ko ko def mi ngi ci biir kër gi te man j'étais sûre que mi ngi ci biir kër gi parce que nit bu la bañee ba wan la ko bu la mënalul dara day dem ci sa njaboot donc moom sax sama sœur bi bàyyiwuñ ko en fin de compte fu mu dem dañ ko koy def ne ko yow sax dañ la laal ba laal sa sëy def nañ ne lu ne ci këru àddina yàlla daf la may ndax li nga jege yàlla mën a jaamu yàlla peut moo la dimbale boobu ba tey foofu laa gën a xale bi dafa a jotee ak benn cousinam ci biir bi ne ko cousine bi kulok mom bay ba mu dem taxaw ci biir xalé yi ne len du day jaay na dafa jang jang na bané ar waye bu paré fi du fi mës a ci kaw suuf koku mako wax man sama bac ci kaw xalé yi daw ñëw wax ko yaayam yaayam sàgganee ko fokk ne wax kese la mais légui la rampe compte que ne wax bobu amna sens ban dañoo dépenser dépenser ba ñu dara sëriñ bu ñu déggu daw sëriñ bo dem xaliss tan lay laaj te ba tay gisunu ben changement xalé bi ba tay namu la mel gennul dóorul fayul bu waxee daal wax ji sax dafay ndaw tuuti pare na ci du sax dugg ci biir nit ñi mu ngi tëju ci néeg rek benn place. liggéey buñ la ko defee mu jàpp moom la neex ndax bu ko neexoon du yegg waaye dañuy sabablu te ñu ngi koy ñaan tamit yal nañu ko saafaraal. bi ko affaire bi di soo ko dal sax dafa sëy rek ndekete jël na yéreem yi mu amoon ci biir armoire bi yëpp saraxe ko am na sëriñ sax yoo xam ne nee nañ loolu moo ko xaw a defar sutura sax. jël bépp yére bu mu amoon ba dese ko dara yaayam daa xëy gis ko benn mbubb ne ko yow li lu mu doon am sa yére yi mu koy teg di ko teg la mu ne ko lu xew mu ne ko saraxe naa yére yëpp beneen saa yi mu ñëw waxtaan ak yaayam ba jooy ne ko ñaanal ma rek dinaa génn ci lii moom daal loolu rek mooy waxam boo waxee rek mu ne ñaanal leen ma phrase boobu rek la yor ci génn xalaas dégg lii rek moo nekk ci kër yi lii rek xale bi mën naa jàng. dafa mën a jàng nekk aw nekk ci yoonu baax. day dem day dem. ñu ne kii war ta dem ñu ne ko du dem. mooy Sénégal loolu mooy Sénégal. mooy Sénégal da ngay war a dem ñu la doo dem. te ñi la naan doo dem ñoom demuñu loolu mooy Sénégal da ngay bëgg a dem. ne ci yoon pour dem ñu la ñoom doo dem suñ doon dem téye la ba pare sax ñoom dem mu baax mais dañ lay téye te duñ dem. mais ban ma yaakaar ni kuy wut xaalis wala ku am ci lum jàpp wala yooyu mais xale buy nekk di dem école di am ay notes yu baax sax kooku mën nañ koo téye. waaw waaw man man yooyu man maa dul xam euh, yan objectif nga am ci yooyu te xale bu mën a jàng. ami bon xam nga man nag ay ko xamante ne jii lu nit wax rek dama naan yàlla la rek waaw ah. Babacar euh, su ma la su lay fexeel benn affaire mu sotti rek yàlla la ne mm-hmm. dëgg la léegi nag bu fekkente ne yow maanaam gëmoo yàlla wala wóoluwoo ko da nga yaakaar ne maa la ko teg fekk bu neexoon yàlla sax man samay pexe du mat. léegi nag comme li ñuy wax aussi loo gis ndogal boo dem fekk ci tànk borom mais a ñu doyloo yàlla rek. gis nga li fi ñëw keroog noonu émission xaw ma vendredi la xaw loolu noonu li ma ci jot ci ay jot ngeen ko sax yéen ñëpp ko jot man li ma ci jot ci ay témoignages ay nit yu dund loolu man damaa tiit. mooy ki nekk seen kër te euh, sœur papaam kii ko. waaw. daf ko inverse lima ci jot ci yu mel noonu ci réew kok mom limi mu indi ci preuve mom mo leer mom kok li waxa leer ah, ah, ñu naan mo wérul ah amna ñu mo naan mo wérul den la indi ay kayitu dof man len ki avant kayitu dof yi la limi netali avant kayitu avant muy dof ah, avant muy dof la li xam li tax mu don dof sax voilà est-ce que wérul sax parce que man déggante nañ dembu voilà yow ak moom waaw parce que wérul parce que mais yow man man nak euh, parrain sa dama réer hmm. kan mo ci inspecteur bi tamit encore man damay def enquête jox ko waaw par yenn saa yi ma réer de yow nga par yow xam ne yow yaa koy dem jëli jox ma ko yenn saa yi kii indi ay enquête am man yenn yenn man man ndax fi ma toog ni maa ngi ci sécurité. ah a nekk Ndiaye waxal Ndiaye waxal ci Assane Wade bañ a nekk sécurité. Assane Assane Wade. mooy bi waaw. waaw waaw. ñu xalaat koy laaj parce que dañoo am ay affaire ci waaw Assane Wade. bijoutier dafa benn femme. waaw bu tudd Ami Mbengue. waaw ñëw ci ñun am luñ ñu wax. waaw loo xam ne buñu ko jàllalee. te déggoowuñu ak Assane. Mhm. li muy yàq mopp li muy defar. waaw te damaa yaakaar ne Assane mag la léegi. waaw léegi te Assane wala Assane Wade wala ay mbokkam. waaw nañu jéem a jege ak ñun. waaw ñu lijjanti loolee dox diggam ak femme bi. waaw ba mu bañ a jàll ci rajo. Mhm, arrêté hémorragie bi depuis 2006 la woon. d' accord arrêté hémorragie bi. waaw Assane Wade moom xam naa du réer ci mim réew. waaw du réer yi benn bopp la ñu. Colobane la sax lenn. Colobane la nekk. waaw ak ci Alpha Thiam wëral ma Assane Wade. Mhm. kii de yaay booy la buy wax ak jeeg gi déglul yéen gone ndaw yi toll ci sëy di leen ñaanal te di leen dolliwaat rek ay kàddu yi cantaane ak ndigal te xam ni njeeg yàggut te njeeg bu ndaw yàggut te lépp loo xam ne yaa ànd ak góor loo ko lebal daañu ko fay sa doom te sama maam da daan wax ni ku ñulug sa jëkkër yekk sa doom yërëm leen góor ñi te yàlla tax góor ñi son nañu man de li nga xam ne moom lay santaane goor ñi di leen yeeram ndax ku dem aawa yaay sa ndey jëkkër ku dem ñaareel ci sab aaw ngeen liggéeyal yàlla ak yonent bi gëm sëñ Tuubaa loo lebal sa jëkkër yàlla fay la ko góor ñi dañoo daw ba dee nit góor da ngay dalal am xelam bu wàccee nga may ko patum dox bu sedd guy toog ci wetam ay waay mas sa sonn nga de waaw bu laaj sa jëkkër lu mu amut te góor nayut góor gu nay xolama liggéey leen yàlla ak yonent ba jëm Serigne Touba mel ni maam jaara bu sul mel ni soxna Faati Isa dee leen liggéey te yàlla tax góor di suyo bu fitam góor wàcc may goo ko nan naan joxo goo ko añ néewo ko mas sa coono ni ko ceeb bajee na ndékkil suba amagu fi man ni ka damay dem te amaguma jundi bu ma yóbbu ndawtal bàyyi leen loolu lu waaye lebal sa jëkkër diis na la ko fay ku ñurug sa jëkkër yekk sa doom jeeg yu ndaw ji góor góorlu leen jeeg yu mag yi jàppale leen seen doom te jàppale seeni i goro te dimbali seen i jëkkër ngir yàlla ak yonent bi jëmi Sëriñ Tuubaa te àdduna bii ñàkk na solo te nag tey rek tey la ñu xam ne xamuñu suba lu ñuy yendoo lu ñuy fanaanoo te loo fi lépp lu boo demee doo ko fa fekk nanu góor góor lu waat ci sunuy sëriñ góor lu waat ci sunuy doom ak sunuy goro dimbali góor ñi góor ñi son nañ daw nañ ba dee yal nañ yàlla dimbali may nu njaboot gu barkeel gu fay sunuy borom kër ndax sunuy borom kër sonn nañu sunuy doom sonn nañu baan audio bi daa war a tas. ah bii garaaw na de. audio bi dafa war a tas. wax naa jigéen day yeete day mm. moom lu muy def nii. waaw mais jigéen ñi la waxal de. jeeg ji day lay waxal ñu góorgóorlu mm. waaw nee na daal góor moom loo amul ci moom rek jàppal ni ci yow la. est-ce que xam nga audio bi xaw ma une minute ñaata la waaye kuy góor góor ah. goo mënti doon. waaw audio bi du commencé ba jeex ti doo ci dégg sa bopp. wala jigéen ñi lay waxal de. góor ñi la ma ni. Mm-hmm. toppatoo leen góor ñi lijjanti leen góor ñi bàyyi bu góor wàccee nga naan ko nangam ak sàngam ak sàngam nangam góor gu déglu audio bi du jeex te doo ci dégg loo xam ni mës nga koo dund mës ngaa wàcc sonn ñu ñu wax la li audio bi wax. waaw. Ah. <laughs> samay wax laa wax jéeg ju ndaw jéeg ju mag ji nag ñoom lay sensibiliser nii. seetlu naa benn ah. man loolu nga seetlu man du ma fekk ndax dañuy déglu allo présidence suñu toll dañuy dem allo présidence loolu nga seetlu da koy téyel sa bopp ba suba ak jàmm. en tout cas yi. ma seetlu de eh, eh, eh, kii am na <laughs> présidence ok.